jum kàngay na bu mu daal baax na. ci biir dinaa leen jaajëf ñoom waaw ñu ngi leen di fay bu baax. ñu ngi laaj ay bis yu mel nii. waaw waaw daal gis nañ kanam maa ñu faral di kanam. waaw macha allah comme ni ñu ko waxee sax si biir rek ginnaaw bi ñu sant yàlla julli si yonent bi yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ñu gërëm suñu waajur ak suñu sëriñ

ko xam-xam ko ci bombardier mu nekk frère am nekk la Cheikh ku gis ku gisul bomb bu lay jaale war na laa mën a jaale ki nga xamante ne mooy Pape Dia ana ba relation nga amoon ak Pape Dia waaw maa ngi sant yàlla di julli ci yonent bi di sama ñaari waajur di sant àdduna bépp parce que tey wax dëgg yàlla danoo ñàkk koo xam ne ku ci ñun koo xam ne suñu mag suñu papa la woon suñu xarit la woon suñu lépp la woon ba pare nag Papa Dia loo mën a seede ci moom ñi ci biti ñoo la ko dàq a seede ci moom. parce que tey gis ngeen li fi daje lépp monde entier ñi fi ñëw autorité yi. muy mbër yi muy ménager yi. ak ku mën a doon la ngay seede ci Pape Dia benn la mooy koo xam ne amutoon adversaire ci làmb foo gisee Pape Dia bañam ngay njëkk a seen mu ree akolaal la jëw taf la ci dënnam muy loo xam ne lu rafet la lu baax la bëgg ñëpp nag bañul kenn Pape Dia kenn mësut a dégg ñu ne moo wax bii infraction ci benn média mbaa ci leneen. li nga koy xamee mooy yar tëggin ak bëgg ñëpp nekk jàmm ak nekk benn ak bëgg jàmm kon dañu koy ñaanal kooku fi mu jóge yàlla na ko gënal fa mu jëm yàlla na ko gënal fi mu jóge ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di wax ne Pape ñun suñuy wax ci moom suñu xool day fees duñu xam sax lu ñuy wax ci moom parce que dafa doon koo xam ne dañoo ñàkk daal lu rëy rëy ci ñun waaw tey moom xol yi neexul dara dara dara ban mën a wax sax dara ci moom dara ndax gis nga Bombardier tey bi mu jëree waxul sax juróomi baat yu mat ci moom xolam fees mu jooy jooyloo àdduna bépp nag waaw ndax fa ko Pape féete woon la ak fa mu egg ci moom kon Massa ñun ñi nga xam ne Pape danoo amoon yërmande ci ñun am ay mébét ci ñun yërëm ñëpp bëgg ñëpp Pape ja daal li ñu mën a wax ci moom yàlla na ko Seydina Mouhamed teeru ci barkeb Seydina Mouhamed yàlla na ko teeru ñu gis la nga tuur xéwal lan moo waral loolu waaw li waral loolu mooy xol yi dafa fees ndax nit bu baaxee ci yow am yërmande ci yow ba pare am ay mébét yoo xam ne da ko dala ko daan woo sax di ko séq ak yow li Bombardier wax rek nee na Pape ku wéet ak moom da ngay teg ne yow rek la bëgg ku wéet ak moom rek ku mu teg ba wéet yow da ngay teg yow rek la bëgg kon kooku bu nu ko ñàkkee xol yi mënul neex mënul neex dara dara dara il faut ñu tuur ay xéewal man ba ma gëjee jooy ku génn àdduna ca sama yaay la ci Pape Dia mii laa ko ñaareele barki Seydina Mouhamed waaw ndax daal doy na waar daal doy na waar. ñooñu leen di jaajëfal. jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf sëñ Bass ñu taxaw kenn koo xam ne assurance bu mbuur assurance buñ ko waxee rek tudd mbuur wax ju tënku tey ñu fekk la fii ci sa mag sa frère génn àdduna muy Pape Diop ana loo yan seede nga ñu ci mën a jox ci loo xamante ne xam nga ko waaw d'abord dañuy njëkk a wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun si yàlla lañ jóge ci yàlla la ñuy dellu Pape Dia li ñu mën a wax ci moom bëri na parce que nit ku baax la woon ku bëggoon famille ku bëggoon dëkkandoo la <clears throat> di wax ne mais nag yàlla alalam lay jël jëlul yëfu kenn dinaay faral di wax ne Pape Dia man fii laa dëkk boo jàddee nii tout droit nga jàdd mooy suñu kër kon yàlla def na Pape Dia xam naa ko lu bëri Bombardier moo ñu tàggat si làmb <clears throat> doon de ay doomu mbër lañ mais moom rôle bi mu doon doxal ci yow mooy fu mu la fekk daf lay jàppee comme Bombardier jamono dox na ba bi ma nekkee ci igri bi lekk naa ay xaalisu nit yoo xam ne grâce à Pape Dia moo tax moom loo jël sol ma dàll ñu dem ci nit ma am combat ñu dimbali ma te ñooñu xaw ma leen yàlla ak Pape Dia moo tax mais nag da di dee liñ naan almootu baabun wakulu naasin daaxiloo almootu dee baabun bunta la alnaasu mooy nit ñi kenn ñëpp dinañ ci ñam kon tey Pape Dia yàlla dafa def dee dugg seen kër mais dafa jël ki nga xamante ni ki gënoon a mën a boole mbokk moom la fa jël man dañ daan faral di julleendoo suñ jàkka ji fajar muy toog ak sama waajur bu jógee dem sama bàbba ne ma ku baax a nii du Dia ñu mu jur du Dia mooy seen papa. ñu mu jur ñëpp ku ci gën ja amu ci. ma ne ko yow lu tax boo ma masaan nuyu nga may teg sa kaw mu ne ma bur man su ma la nuyoo te tegu ma la sama kaw pour man nuyu ma la. kon ko ku baax la. làmb li ñuy nga xamante ni moom lañ nekk dem naa ba génn écurie bi créer sama écurie mais lu mu gàtt gàtt gàtt gàtt su ma amee combat dina ñëw kër ga waxtaan ak man conseil ma su paree dem. kon kooku defe naa nit ku baax rek moom man loolu yàlla moo ne nit ki bu la defalee lu baax man nga koo bañ a wax sax bi muy dund mais bu génnee àdduna fépp fu ñuy nettalee lu baaxam na ko fa seede bu nit deewee bu kenn toog si jotaayam di wax safaan parce que lu baax rek laa bëgg ci moom nit ñi di ko dégg ngir malaaka yi koy ñëw di di seede si lool mën a dégg lu baax ngir ëllëg ma jéggal ko njéggal googu yàlla na dajeeg moom yàlla moo fi nekk leneen nekku fi yàlla na ko suñu borom xaare àjjana wax ne Pape Diop baax la woon jërëjëf Pape mbokk yi ba tey ñu ngi toog ak kenn koo xamante ni mooy père Djibi Malo père Djibi Malo ñëpp xam ko ci Bombardier bokk na ci ñi nga xamante ni ñoo jàpp Bombardier ci loxo ànd ak moom ci làmb ba mu dégg daal père ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay waa Wasaare. waa Wasaare làmb. waaw euh, hmm. maa ngi nuyu waa Wasaare làmb di ñaanal seen télévision bii. fu télévision i yàgg rek yàlla nañu fa yegg mm-hmm. ci daraja yonente bi loolu maa ngi leen koy ñaanal ndax maa ngi leen di dogg a dégg tey wasaare mm-hmm. waaye xam naa télévision bu bees la ah, waaw waaye nag yàlla na ko yàlla ah si si internet ah. waaw dëgg la si internet la waaw dëgg la maa ngi leen di ñaanal bu baax jërë ngeen jëf mm-hmm. Bombardier magam bi nga xamante ni génn na àdduna muy Pape Dia nekkoon kenn ci moom fu ñu ko gisaan ci làmb Bombardier gis Pape Dia ci wetam alors yan seede nga ñu mën wax ci aji waay dem waaw xam nga ay nañu bokk ak bokk donc boole leen bokk ndey ak baay nit dañu bokk ak bokk rek boole leen hmm. mais ay nit dañu bokk bool butiku leneen boole leen hmm. ndax ay nit eh, dañoo bokk ñoom ñaar ndey ak baay hmm. muy deuxième toppam hmm. parce que lee moo topp ci moom euh, ci Fadia Bombardier topp ci kon muy deuxième toppam mu topp ci moom mu ànd moom ci carrière boo ba geex am jeex ba ba fi toll nii tey boo boo daanaka eh, Bombardier ma nga jëm fee carrière eh, mu génn àddina tey taxawu na ko lu war ci moom def na ko bu fekkoon ne tey moyen la ak faj ak yéene du génn àddina mais yàlla bu soxla ki war a ki ki war a faatu kenn mënu koo faj yóbbu na ko hôpital Fann jëlee na ko yóbbu na ko France faj nañ ko lu neex def na ko ci yàlla def na li ko neex ah loolu moo neex yàlla ah ñoo ngi ko ñaanal yàlla na ko yàlla yërëm bés la nag boo xam ne boo ñëwee tey jii xam ne ki génn àddina kilifa la ndax ñëpp yéen ñi tey yéen a fi rajo bii nga xam ne mooy wasaare dégg yéen a ngi fi ak ñeneen ak ñeneen dégg naa ne tey média yi koo gis ñëw na kilifa diine yi kilifa aada yi ñëpp lañ day tey pour nga xam ne kilifa génn àddina ñu ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla yërëm waaw Bombardier nag mooy mooy rakkam taxawu ko taxawu famem taxawu bokkam man mii maa ànd ak moom ci mboppati saaku ceeb maa ànd ak moom ci ay mboppati nag maa ànd moom ci ay deuxième combat maa ànd moom ci grand combat maa ànd ak moom ba mu daan Mouhamed Ndao tey nekk roi des arènes maa ànd moom ba mu dégg daal kon jaar nañ ku bari ah, yàlla def na loolu eh, nit ku baax la xale la boo xamante ni tam ba muy jóg ñu koy jàppale neexoon naa jàppale loolu parce que gëmoon na li mu doon def. Mm-hmm. te lépp te làmb dafa metti ndax boo bëggee nekk mbër rek. il faut di nga woon àddina gannaaw. Mm-hmm. te jamono boobu waroon na àddina ginnaaw wut doole am doole ndax làmb itam kenn ku ne xam na ne baas bi doole baax na ci. Mm-hmm. baax na ci moo tax it wuutoon na ko ba am ko jamono yi itam déggaloon na ma. déggaloon na ma ci entraînement yi déggaloon na ma ci lépp ba yàlla may ko tey mu dégg daal. vraiment quoi loolu itam am na waaw wax dëgg yàlla waaye yéen moom maa ngi leen di gërëm maa ngi leen sant lii daal eh, ni mu toll lépp mu ne su koo wax waaye yi kàddu daal eh, sànni ci daal te lu am la dëgg la waaw jërëjëf waaw ba tey ñu ngi toog ak kenn koo xamante ni fii la dëkk ci dëkk bi muy Obama nekk mbër takk ngeem tey ba relation nga am ak ki nga xamante ne mooy Papa Jam mi fi jógee ak tey waaw tey nag moom euh, wax dëgg si yàlla dañoo nekk ci bis boo xamante bis bu métti la muy su naqar naqar waaye it naqar bu ànd ak mbégte ndax mbégte bi moom mooy euh, am yaakaar ci aji dem gi muy muy sunu grand muy pap pap wax dëgg si yàlla koo xamante ne tamit sunu sunu mag la sunu xarit la Euh, ñun ñu nekk nga xamante ne ñoo nekk mbëri Mbour rawatina ñun ñi nga xamante ne ñoo nekk écurie Bombardier écurie Rakam mu nekk suñu ménager di ñu jàppale ci côté yu bëri ah kon tey bu ñu ko ñàkkee wax dëgg saa da nekk bis boo xamante ne bis bu métti la daal vraiment. Hmm. nan nga yëgee nouvelle bi. waaw nouvelle bi ni ma ko yegee ndax euh, ci bis bi. Hmm. maa ngi diggante ak Rakam Bombardier déggante nañ ba euh, ay côté 6 heures si ngoon te boobu ndekete li am am na depuis 9 heures si suba. Euh, mais ci ak daalam rek ak ci papier yi mu doon lijjanteeg yooyu tax ba nangut a jàllale information bi. Euh, mu bàyyi ba lijjanti li muy lijjanti ba pare ba ñu yóbbu ko ci margo moo def lépp muy soog a euh, jàll information bi ci laa ne ko woo ko ne ko yow xanaa bu ñuy diggante loolu am na mais dara moment boobu mënuma wax kenn dara rek dama ne naa def mi dafa pare soog jàll information bi moo tax bi ma ko déggee tamit affaire bi xawoon na ma jaaxal et metti woon na trop nag euh, bi ko bombardier yéegee ba wax la ana lan ban relation moom laa jàppale ci làmb wala bu dul làmb nan ngeen meloon ki nga xamante ne mooy Pape Kane waaw moom wax dëgg si yàlla même budul làmb sax ñun yàgg nañu am relation maam avant moom muy dugg si làmb parce que moom boo Pape mu yéex naa dugg làmb Pape mun naa ne Bombardier nekk na si làmb lu yàgg muy soog a ñëw di ànd ak kon Pape moom affaire football la gënoon a suivre làmb sax moom bon boo ko xoolee sax nga xam ne carrément dese woon na ko maîtriser en 100 pour cent football dama mujj gi nag bi muy ñëw ah, wax dëgg si yàlla boobu ñun fekk ñun boobu ànd nañoo Bombardier ci làmb lu yaatu yaatu lu yàgg mais nag teewul Pape du tàkkamtu sa dara loo xew la ma nga ca ci xalaatam bu rafet saa yi bu la gisee lu mu la njëkk a def mooy xam nga wo nuyu la te bu la nuyu accolade la taf la si kaw mooy seede bi ñëpp seede rek loolu moom dañ koy nangu ndax am dëgg la te mosuma toog fii ci kër gi kër gi moom daanaka fi laay lekkee fi laay yi ñu toogal xam ne ci dara euh, waxtu julli jot paab jëlul satalaam dem jàpp julli te ñun bu ñu toogee sax julli julli da ngay dégg mu ñuy soññ ne jóg jóg leen julli yéen a ngi caaxaan kon yàlla na ko suñu borom fay loolu fa mu nekk. jërëjëf jërëjëf jërëjëf. waaw ba tey jërëjëf mbokk yi ñu ngi taxaw kenn koo xamante ni mu pakala ku wax la wax mbuur ñëpp xamee ko mbuur pakala tey nga nekk ak sa mag sa xarit Bombardier nga nekkoon ci écurie ñaar tey magam génn àdduna mm-hmm. muy Papa Dia lan nga ñu mën a wax seede yoo ñu mën a wax ci moom waaw ginnaaw bu ñu sante yàlla julli si yeneen bi di sant si ñaari waajur ginnaaw tiisu mit na lool boo bëggee sinuwaay la mais Pape Dia moo gënoon nekk si ni grand aussi gën a nekk si sinuwaay ndax Pape Dia foo ko fekk jàmm rek lay dox ku mu gis bokk naa ak yow ndey bokk ak yow baay kon lii nii kenn yéene ko woon Pape mais jàmm beeg pexem yàlla ak dogalam ñoo ngi koy yàlla bu baax suuf sedd si kawam ndax li moom mun naa ne Sénégal yëpp ñàkk rawatina ñun ñu dëkk Mbour dundu làmb surtout waa milieu làmb quoi tey Pape yow bu nga yëgee nouvelle bi Papa Dia génn na àdduna loo yëg waaw Pape affaire métti na ma lool. mais comme li ma la ko waxee rek jàmm beeg pexe bi yàlla ak dogal ndax Pape kenn yéenewu ko woon lii. ndax foo fekk nit koo xam ne jàmm rek lay dox. nit ku baax la. foo ko fekk euh, luy jubal doomu aadama yi rek lay def chaque jour si lay dox si lay wax. kon Pape kenn yéenewu ko woon lii yàlla na ko yàlla yërëm. sarax bi yàgg seen loxo. yàlla nay dee di noof laayam waa ndax métti na lool ba si kanamu yàlla. jërëjëf jaayee faay. jërë ngeen jëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyu ñu kontaan ak ñun te jàkkaarloo ak yéen gis ngeen lépp lu ñu leen wan fii ci wasaare làmb mbokk mu nekk tiis boo xamante ni dal na ci monde làmb képp kuy dund làmb wala ñi dundul làmb képp kuy sportif tiis bi dal na sa kaw muy Pape Dia ki nga xamante ne mag la ci Bombardier mu génn àdduna ñu gis ci mbooleem képp koo xamante ni ci làmb la bokk ñu jiital ko ci suñu ministre ministre des sports monsieur Matar Ba gis nañ taxawaay bi rafet na suñu papa Asbekaay Mbaye ak yeneen mbër yi nga xamante ne teew nañ fi ku ci mel ni démb Giri Bordeaux Yaxya Diop Yékini ak ki nga xamante ni mooy Eumeu Sène ak yeneen daanaan yi nga xam ne daje nañ fi tey ku ci mel ni Tyson ah ki ci mel ni euh, Tapha Tine ak yeneen daanaan guy gi ñépp ñëw nañ. jaale ki nga xamante ni mooy bombardier ndax kat ci ñu ñàkk ku nekk war na koo mën a jaare sa moroom ci làmb mbokk yi nii la la wasaare làmb di dundee ak yéen fépp foo xamante ni xibaar xew na fa lu jëm ci làmb wasaare làmb di leen ko dégtal wasaare leen ko ba àdduna gépp jot ci fii ci wasaare làmb mbokk yi ñu leen di jaa jëfal bu baax a baax a baax di am kontaan ak mbégte di jàkkaarloog yéen saa su ne gis nañ yéene yi gis nañ jàppale yi waaye wéetuma ci benn yoon maa ngi ànd ak sama xarit sama mag sama lépp muy sëñ Basiru borom bég meeg taar bi nga xamante ne macha allah xol bi rafet na yaatu na sëñ Bas boole na ñëpp ñu doon benn yàlla sa jàmm yàgg nduru nga sa turandoo ci jikko ju rafet nduru sa turandoo ci ñaw